ak parcelle muy lan lo xamantene tay tey désencombrement la ñi li ay espace yo xamantene c'est réservé pour les piétons ah. ay nit foog nañ dañoo am droit pour lal fa seen ay bagages tay ñi ñëw dindi leen fa pour indi la mobilité ces jeunes là ñoom ñoo njëkk reconvertir taxaw jakarlok ñi nga xamantene ñoy régime bi hmm. di sànni ay xeer di taal ñaari bisu tata taal taxi jaamur comme liñ fi xamone est-ce que tay ñom ñi nga xamanteni ñoo leen formé ci lool parce que dem nañu bay tontu Ousmane Sonko ne ko yow yaa ñu formé yar ñu ci gàssa gàssa gàssa gàssa lañu di je suis contre la violence mais ñom xam nañu tay nekkuñ ci yoon parce que soo dem Europe fekk territoire wala passerelle ñu fay na wala la la wax voilà doo dem Europe fekk passerelle oh. nit di falal ah, ah, lal doo fekk foo xamante ni territoire yu ndaw yi fi BRT bi da ngay gis léegi mi ngi nii soo jaaree côté avant ngay egg Yacine Thiandoum bi tabal yi commencé na fa fess alors que yow mi dox ci sa di dox sa toile sax amoo foo dox tey est-ce que tey ñoom ban discours la ñu war a tenir d'abord pour ñi nga xamante ni dañu war a xam ne que rupture bi foog mu am ñu mu gaañ pour defaral ñeneen. mais tant rupture parce que jeunesse bi ma gis patient wu ñu ah. déedéet déedéet du patient. c'est-à-dire que jeunesse bi parce que seen bopp ko ñoom ñoo moom Diomaye Faye ñoom ñoo ko fal donc Diomaye dafa war a agir. c'est l'espoir qui est grand rek. voilà espoir bi moo ngand ci ñoom par rapport à li ñu dund. mais tax il faut ñu xam ne rupture dafa am aussi ay conséquences yu muy am. baax.

nit ki bu fekkee ne dañu nekk lal fenn di fa nekk yow autorité bi koy l'autorité municipale nga ko ci muy fay ay di di pendant des années tey soo koy jëlee foofu d'accord rupture am na fay di ko man ñu arrêté ay clause parce que yow li ngay def pour liggéey Sénégal mais li ngay def pour liguer les ñom parce qu'ils font partie du pays maintenant il faut que ça soit de manière concertée que ça soit accompagné et que accompagné boobu mooy bu ñu waxtaanoo man gëm ne du période bii lañ def parce que ñu ngi dem vers tabaski. Si ñu waxtaanoo am na yoo c'est dommage que yenn municipalité peut-être dañu bëgg a que nous ñu ngi liggéey ñu ngi def rupture et bëgg ko jaarale foofu il faut pas mélanger les pommes de terre et les patates. il faut discuter avec ces jeunes là c'est des sénégalais xool bu leen yëkkatee fi, su amé maire bi amé possibilité teg fa population bi di fait fa fekk ñu def une activité parce que li dans daan seen aussi pour une gi la loolu je crois que lu ñu war def au préalable ba waxtaan ca ñoom te warul jul coow fi nga taxaw xam nga ne fii taxaw di fe jaayee mais fi la la tàmm di la ko def waxuñu la dara ba nga installé ba ngay def di ci jële bay yaakaar ah te li lay demandé xaalis mu ngi dugg ci municipalité wala ci commune bi su leen di jëlee foofu nañu waxtaan ak ñoom trouver des terrains d'entente ñu dem ci jàmm mobilité bi am ci jàmm parce que lii am fii amul si benn réew je dis pas Afrique mais réew yi bëgg dem il faut que tout soit organisé ku nekk xam fan ngay yem lan ngay def et loolu mooy un peuple mooy le commun vivre ensemble. Il y a des règles qu'il faut respecter. D'accord. Si biir lolu nga wax sank deg tu es contre le dialogue national parce que Macky Sall yakh nako. Il dit nga ben concertation. Est-ce que jotul tay mo am concertation digënté les secteurs parce que li nga gis ni parcelle gis ko fele comme li nga avertir barki dembu amna qui kuma alerté ñi ngi nek fi ci technopole bi. Yor sen parking nena ñu dañ doon fait depuis 5 ans 6 ans 15 000 francs ni 20 000 ni 30 000. Le maire cher dieu xey a fait rek ne len yow mi doon 15 000 250 000 ngay fay wala nga joggé brusquement donc est-ce que de brutalité boobu madame sans concertation mënul indi des dégâts vu que nous ñoom ci seen bopp dañu war a un commerçant parce que commerçant bi a des di fay juuti francs moom dafa foog ni juuti bu muy fay cent franc donc daf ko bay benn légalité pour mu toog ci territoire ah alors que juuti bi mayu ko légalité ah juuti bi impôt la ci li muy jaay mhm. place bi muy taxaw noonu daf ko war a doon lu légal juuti bi foo koy jële ah foo koy jële ci place bi illégal nga koy jële waaw moom laa wax yaa ngi koy daganal waaw loolu laa wax moo tax man la concertation boobu laa lay laaj est-ce que jotul ñoom ñu yor mairie yi am concertation ak ñi nga xamantene parce que xolé nak du xeet suñu mbokk ñu bari ñi ci jaay moy suñu mbokk yu am dañ joggé ci Allah ba amuñu formation amuñu métier lu ñuy dem jënd ak jaay donc c'est bien dañuy daan seen doole mais est-ce que du ñak xam bobu tay ci ñi ñu diriger état bi dañu wara a commencer maanaam concertation bobu la la wax xam nga ñi ñëw xam naa ne yaa ngi aspiré jiite ji mairie parcel loolu leer na ma. non non mairie bi mom je crois que yalla dina na sutural parce que masuñoo changé masuñoo changé suñu posture si ñi ñu taxawé parcel nek ay bay fallu parcel ñu bari nag changé te boobu gis nga ni nu mel ak ambulant. mais moom la moo tax unité huit. joor beeg joor. fépp fépp fépp même <laughs> pavage bi même pavage bi nga xam ne. voilà ñu koy defee yëpp da gis ne c'est occupé. da ngay gis ay parking ci kaw da gis ay nit teg seen table. ci kaw nii dañuy wàcc ci tali bi di dox. mais li ma gëm ba gëm mooy li ma wax ñii ñëw. Mhm. dañu am yaakaar bu jeunes yi am ci ñoom. yaakaar nag du tax ne li nga war a def pour ñoŋal réew mi doo ko def. Mhm. tey li ñu gis les communes là ce sont les démembrements de l'État le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement nañu xool approche bi nga xam ne suñ ko defee sénégalais du ci gaañu te réew mi dina ci gis boppam parce que nag réew mi amul liggéey ñu bëgg ñu bañ ko c'est pas une raison pour que réew mi amul liggéey fu la neex nag ngay taxaw ne da ngay liggéey da ngay envoyé njaboot ki déedéet mais il faut qu'on les organise d'accord organiser leen mooy waxtaan na les acteurs la ngay tënk man ngay defaral mhm. mais waxtaana lax man. ca dëgg-dëgg. bu nu waxtaanee ba jubboo ci kàddu. mais ñoom sax ñoo lay jàppale nga dëgër piir. d'accord jarul ay gendarmerie jarul ay il faut nous responsable. d'accord kii taxaw ci société bii di jaay laal fa xam te ne fu mu taxaw ni voie publique la amu ci droit. Mhm. kii def décalement sa kër yam fii nga génn waat def décalement xam nga ne amoo ci droit bu ñu waxtaanee yow bu fekkee ne nag sénégalais nga bëgg Sénégal. liñ lay tegal comme charte di ko nangu mais que ça soit de manière concertée. d' accord booy liggéey lañ bëgg mais il faut que liggéey boobu aussi ñu organiser leen mais doo ñëw aussi bëgg a jaay doole loolu dañ ko fi doon gis ñu ko doon xeex. c' est pas normal que leen eh, bu ñu deful attention nag maire yi ma gis nii nan la leen nan la leen indi ay jafe-jafe ah. ah. ils font partie de l'État. état. ce sont des démembrements de l' état na leen état woo wax déguerpir oui mobilité oui mais il faut que ça soit de manière concertée et accompagnée. On ne peut pas aussi mettre les jeunes en pâturage. D'accord.